Euh, au plus grand jour si que en plein débat politique exactement ko alors man limay wax ci du du hmm. parce que euh, voilà man Adji euh dam ko classer ci catégorie moy fi ma classe euh, ñeneen ñi ñoo dañuy wala dañuy dañuy oromal dañuy oromal nit ko dañuy euh, euh, euh, dañuy xawi sutura donc ñu catégorie boobu la classé parce que man gisuma ni que bu attention. non parce que aji sar moo taxaw fi ne audio yooyu. Hmm. audio dafa nañ man de dafa dem ba section de recherche ñu laaj ko yow def audio mais man dama hmm. ci ndaw di nit ku baax na ma jégalan ah ci kaddu boobu parce que man noonu lay classé ay ñoo xamante duñu ay nit yu baax parce que dama jàpp ni bu fekkee da nga def dossier boo xamante ne rey na ay junni wala peut-être ay nit yu bëri au Sénégal jaadu na nga révéler la vérité parce que vérité bi wax nga ko ci say audio dëggalal sa bopp boo demee comment dirais euh, cour euh, commande euh, boo demee fële ci section de section de recherche wala sûreté urbaine ñu poser la question ne ba nga ne waaw. sëñ Ba taa nee na ko def.

message message boobu laa am pour wax ko bu fekkee kër boobu néegu boobu mu nekk dañ ko quoi luweel donc na xam ni que bu taalee néeg bi kër jàmbur lay taal bu ma taal kër jàmbur moom mën naa dem xaru géej baa ngi fii ne yambalang ñuy xaru dañuy jël gaal dem soobu ci géej gi dee moom mën naa génn fële dem plage ba soobu ci géej ci ci géej gi dee xaru boobu moo gën a yomb que taal néeg boo xamante ne da ngay nekk ci biir mu lay lakk muy métti xaru boobu moo gën a métti wala wa ilaa mën naa xaru xaru bu simple muy yëg ba sixième étage wala troisième étage nga tëb balaa nit ñi dina eh, eh, eh, kenn du la sauver yow egg nga si suuf kuy xaru loolu lay xaru mais kuy xaru du taxaw ci néeg def lu muy def ba pare jël ojo ne noo woy dégg nga il que génn na audio. Hmm. di di di wax ni wooy nit war nañu waruñu ko jox ay fils de parrainage damay xaru c'est comme si yow la justice sénégalaise dafay repose ci say bëgg-bëgg yow say caprice mm. mm. c'est c'est ça la justice sénégalaise mm. la justice sénégalaise day repose ci ay caprice Adji Sarr mais parce que sëram Sarata

peut-être xëy au tribunal de faut que mu génne c'est-à-dire que faut que ñu déplacer l'information ñu andi ñu ne Adji voilà c'est à ton tour nga dugg ci scène bi tamit sa waji ji génn na fële de ta taakale nañ ñu à Ziguinchor yo tamit génnee benn scénario. ah bon c'est un coup de théâtre au Sénégal Sénégal li moy Sénégal ko xamul Sénégal do mësa xam Sénégal chaque jour nee les problèmes il y a des moyens de créer c'est-à-dire que problème bu amé il crée un problème dans des problèmes pour étouffer un problème. Mm. Chaque jour, je la hmm. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Problème, moi, il problème. Ciao, moi, il ciao. C'est ça la justice. C'est Sénégal. C'est ça euh, euh, au Sénégal. Sénégal, non, la yaga dohe. Bu information guinée, bon, arranger le, le, régime en place ou le gouvernement. Mm. ils vont chercher une information alternative bon xamante peut-être mën naa fay coow le boobu hmm yow pourquoi Adji Sarr toog ba ñu jugé bu fële Ousmane Sonko ba ñi peut-être nga gis ay ñeneen ci ñooñu Ousmane Sonko ñuy jubilé à partout mom mu génnee scénario am tamit dugg ci le jeu entrer en scène ce qui ce qu'on appelle c'est euh, acteur bi tamit war na dugg en scène. te ci euh, la Adji moment bobu la Adji choisir pour dugg en scène ci théâtre bi pour ne leen wooy Adji dafa dugg ci négam bëgg xaru kuy xaru kuy xaru. Hmm surtout le feu buy tal talent neg la de information boo te dañuy taw sax information du lay mais c'est une histoire qui a été racontée. on les raisons exactement. non sërëm sërëm ah, lay rek lay hmm. hmm. est-ce que mus nga gis hmm. est-ce que est-ce que tu as une fois été témoin ñun on l'a vécu man je l'ai vécu. non pour voir la ampleur cœur buy Tak, a nga taxaw jaakaarloo Dugu cœur gi ñi rawalé ay xalé yi ndaw ñi rawalé duggu risque sa bakan pour génnee ñu fa nek bala sapeur di a xam nga sapeur boko woyé mëna def wala heure heure de temps. mais mu ni ñu ne leen ah kër jëwu ma mu ngi takk ngeen yeew bërëk ci seen nelaw dem di secours yi ñooñu woo sapeur balaa sapeur di ñëw ngeen di jël escalier yi di daw pour rawale ay xale yi ndaw est-ce que mës nga ko gis yow boo ko mësee gis doo doo sukkandiku ci thèse bi ni que aji saa dafa bëgg a taal néegam. mais ñu ne sa sœur était très vigilante. <laughs> non yan yan da ngeen di caaxaan yan wu xamoo leen lu xew kër buy takk laa la wax. billaahi doo taxaw ci média di kii dafa bëgg taal këram da ngay toog tout une année. Hmm. image yi di travailler sa bopp. image yi di travailler sa bopp laa la wax asatuma ngeen toog di naan non Adji dafa bëgg a taal néegam est-ce que da ngeen mesurer l'ampleur ji taal néeg néeg benn kër benn néeg bu takkee kër mooy takk lëm. mais parce que le circuit électrique.

Yo, l'histoire de j'aimerais j'aime tellement prendre cet exemple hmm. maak yow Mom, naa moom <laughs> débattre nañ ko fi ñu am ciow lool maak maak la la la jeune dame là qui qui s'était pro proclamé ni que dañ ka kidnappé euh, mana mama kundul mais regarde comment ils ont tracé le film ba ñu ne fee la kasso kaso mo woté de que ñom ñëpp ci plan bi la ñu bokk hmm. yaay fàttaliku loolu hmm. ba police teg len loxo mais qui te qui te dit que laa sœur de Adji bokkul ci plan bi xam nga man maay wax ay révélation man maay wax. Hmm. suba da ngay dégg nit beneen kii nii ñu ne kon demewul noonu yow chaque jour nga ñëw ne ma pourtant waxoo nga lii loolu moo am maay waxaat ma ne la kii te di la sœur bokkul ci le plan boobu bu ñuy tëgg moom ak Adji Sarr pour ñu dugg en chaîne. ci ci mais c'est quoi la finalité la finalité de Ousmane Sonko ndam boobu.

wa waxuma ci jugement bi contre Ousmane Sonko duñu egg sa ci jugement bi ba mu ci audio la non xaar explication mooy maanaam damay fooy wala len déedéet loolu sax loolu sûreté urbain wala section de recherche sax du xaar loolu audio yi aji yow yaa wax li waaw leneen ñi li si intéressé wu len yoon lay police ak li ngay c'est pour dugal sa sa yow wax kaso directement et eh, dans ce cas du toog fii dina ne wooy dama bëgg xaru ñaata yoon ngay dégg fii nii naan ay gisaar tukki na ak dem na fee ñu démentir ko yu yëpp c'est des mises en scène pour dugg ci géew bi ay gisaar fakk na fii daw fii kenn gisu ko ñu démentir ko tey ñu nit yi ay gisaar bëgg na xaru suba dinañ génnaat encore démentir ko El Hadji Diouf génn na dégg nga lu mu wax na intox la ay détracteur la amul ñom loolu la def dañuy tëgg après les pompiers c'est comme ça avec agisar ça toujours resté comme ça Adji la a la ñuy xambal après ñoom ñu retourné waat jouer les pompiers fay ko ñu ci en attendant beneen coow génnaat ñu ne top dugal ci bi defal beneen connerie c'est comme ça. Hmm. ba kañ loolu yëpp ba

je veux xam nga Je veux. lay ñaan benn jour. nga les journaux li ñu publier. ma ak yow nga posé ma des questions yo c'est tellement technique. moy manam courant. séeréer euh, te Sénégal moy manam émigration sénégalais dañu bëgg yooyu. ñu ci yoyu man dama bëgg nga. Euh, économie Sénégal PIB tout ça man la bëgg posé ma benn jour ñu xamal sénégalais lu xam. xam nga Je ñu bëgg ñu débattre ci lolu motax ñu leen di invité chaque fois nous euh, ñu dérouter le regard des sénégalais nous ñu leen di xooloo ay politique Amadou Ba na rassembler ay nit fële parcelle nous la ñuy bëgg chaque fois médias yi di débattre. parce que c'est c'est ce qui leur arrange. ay ñu dem assemblée pour détourner le regard des sénégalais sénégalais voilà ce que Sénégal Sénégal lu ñuy les questions essentielles les sénégalais yi faut débattre pour trouver des solutions parce que arrangé wu nguur gi arrangé wu leen Moi, je du ñuy bëgg mukk les journaux bind ci tardé ci loolu ay des questions techniques économiques et environnementales mm. le réchauffement climatique tout ça des questions gaz pétrole feeñ na Sénégal comment voilà merci beaucoup euh, si